Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now you can listen to Al Fakir Muhammad Saha Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 401 347 07 941. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. Wassalam.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 sallallahu alayhi wa sallam wala xawla ñu dañoo dañu xaw a soj ñu ngi continuer ak yéen ci suñu ñetteelu bind téere Mawlana fi mawlidi sayidi wala di adnaan te moom ci boppam mu def ci sharxa boo xam ne dina dimbale ñëpp waxi tamit source ya mu jëlee baat yu niroo ya yu mel ni lisaanul arabi ak yu mel ni qaamuus ak ay shuruxam suñu benn kilifa it Cerno Mouhamed Saïd Ba def na ci it charxa bu am solo tuddee ko <coughs> alkasul malaan min riya wam aan yal nañu ko yàlla boole <coughs> fayal yow <coughs> nee na wa naazaat tuyuuru kada wuxuushun li xannaanin yakunu rida alqatini mi ngi continuer ak ñun ci euh, kéemaan yi feeñ ci juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> nee na wa naasaat ku xëccoon a tuyuru njanaaw yi picc yi kada naka noonu euh, njaay àll yi rabi àll <coughs> li xanaanin ngir yar aji ñeewante gu tar ji ñeewante muy rasulullahi sallallahu alayhi yar goo xam ne yekkoonu dana nekk ridal qatini eh, ngër mande kuñ liggéeyal ki kii rasulullahi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne ku ko liggéeyal rek yàlla gërëm la ba mu juddoo njanaaw yi rabi àll yi jinne yi ku nekk ngi xëccoo <clears throat> maakaa yar ba ci nit ñi sax ndax ña doon daw jëm makk yépp <coughs> leer ga fa feeña tax waaye ni yàlla nëbbee laylatul qadri ci guddi yi nëbbee ko duwaawul mustajaabu ci ñaan yeeg saatu lijaabati yeeg wali yoom mu gëlëmal leen ku nekk yaa ngay seet ah, koom ba yaa ngay laajtee xale yu am baay ak ndey te ndekkee moom nga doon seet fa ko xamut ndax ka ko jël boom ko jëlee rek ci la tàqalikook ñàkk ndax moom rek ka am koom ci àdduna ak ci àllaaxira <coughs> ndax ci loo xam la ko yàlla teg alayhi salaatu wassalaam <coughs> bi ñëpp di xëccoo yar ak e, toppatoo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam comme xaleel bu tuuti lisaanul qadri <coughs> fekkte yoo làmmiñu dogal dogalu bi yàlla xad naa woote na jihaaran ca kaw ne uxtusat jagaleef na bii ci yar yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama xalimatuna sayidatuna saadiya bi duuni ca njëkk lu jiitu yàlla y bind mbindee fi dogaloon na ci saabiqu alqadaram <clears throat> alqadaram ne sayidatuna xalima moo koy yar waaw <clears throat> bii ci barkeem moom rasulullahi sallallahu alayhi wa taaba la nangu lay tuub al ilahu yàlla ala abina ci bàyyi suñu aadama suñu maam aadama ba mu lekkee garab gi <coughs> yàlla nga ko yenk wale baat ya mu tuubee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci barke yonent bi la ko nangulee tuub <coughs> mu xoolee gis ne sama borom bind na ci peeri arsh laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi mu xam ne yàlla du tëkkale turam lu dul mu ànd ak turu ka mu gën a sopp ci lëmbind mu daldi jokk ci tur woowu yàlla baal ko ndaaj na ko noo ko xamee mu ne ko li mu ko gis nga lëkkale ko sa tur a mu ne ko waawaw ci sa njaboot la te ci mujj jamono lay feeñ di axiru nabiin su dul woon ak moom duma la bind bu dul woon ak yonentu sallallahu wa sallam alla du bind aadama du bind ku dul aadama moo tax ca barkeem la ko yàlla yankawalee baat ya rabbana walamna anfusana waaye ci barkeem la ko nangulee tuub moo tax Seyduna Xasaan ne ko eh, yow la yàlla lëkkalee ak eh, eh, sa tur ak turam wa dammal ilaahu isma nabi ila ismihi ida qaala fi lxamsi almuadinu ashhadu wa shaqa lahu min ismihi li yujillahu fadu larshi mahmudun wa hada muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kon bihi ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taaba la yenk waleeta nangoo tuub al ilahu yàlla ala abina ci suñu maam Adam ngeen baal ñu dañu sojo soj ba yàqu waaye comme lañu diggee bés bu nekk danañ jàng benn bind fokk ñu jàng ko fajar gaa ngi bëgg a jot sax waaye pexe amul <clears throat> luñ ci jàng rekk mu baax du dëgg bi ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> moomu di soog a juddukat ñépp di ko xëccoo yar ci dara jaam zunnuuni borom jën wa te mooy sayduna yunusa zaaya la la tàqalikoog bat na nuuni biir jën wa yontu yàlla yunus ba ko aw nitam mooyee ba mu ñaan yàlla ba mu gis màndarga yu wane ne mbugal maa ngi ñëw mu dem <coughs> te ñoom commencé nañoo réccu waaye moom xaarut ndeke yàlla euh, baal na leen ci gannaaw ga nangu seenu tuub yunusa nag ba mu duggee ca gaal ga gaal gay euh, dekone ba ñu bantalee bant ba dal ci kawam ñu bàyyi ko mu euh, dugg ci biir ndox mi jën wa wann ko yàlla nga koy yankawalee baati sàbbal ya ci barke yonantu ba mu nga naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu <clears throat> min adalimin bu dul woon ak barke yonantu yàlla muhammad sallallahu du jógee ca biir eh, jën wa bihi dun nuuni zaayala batna nuuni bihi ci barke yonantu bi sallallahu la amee bishrun ak mbégel mbégte wa ixyaawoon ak dundal Euh, ku deewoon ba noppi li isa ñeel yonent yàlla isa mujisaat yi yàlla joxoon isa yépp muy dundal ku deeg muy wéral ku ngaana ak delloo bëti ku gumbaak yépp ci barke yonent bi sallallahu la ko amee bii ci barkeem xaala la waxee alali yàlla mu kawe yaa naaroo ee eh, yow safara si ko ni nekkal bardan wa salaaman ala ibrahima ci barke yonent bi la yàlla musalee ci musalee ibrahima ci tàngaayu safara bu lu woon ak barkeem safara lakk ci barkeem la ko yàlla xettale alayhi salaatu wassalaam <clears throat> bihi ci barkeem moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayduna yaqub murtaddun la mujjee basiran di aji gis wartadda fartadda basiran waaw alqaahu ala wartadda basiran ga ngeen <coughs> eh, eh, ba mu ñàkkee yusufa jooye jooye ba bët dem Eh, amatul ndoxam bët mu mujj silmaxa ba ñu ko eh, bégalee sànni ko mbubu ma bët ya dellusi si eh, ndekete yoo mbóot ma tax bët ya dellusi mooy barke bi yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi bi ci barke yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam luutoon sayyidina luut yu na jaal musaleef ko min xuróoni ci ñooñ jamonoom ñooñ jamonoom ñi nga xam ne ñoom la njëkk a xamee ak ngóor jigéen yan na yàlla rëbb leen ak képp ku koy promouvoir euh, yaa ba ko tëkkoo bëgg ko alak bëgg ko fitnaal di ko tuutal ak di ko xeeb euh, ak di ko euh, caay-caaye ci ay ganam yàlla ne ko boo xëyee rek àndal ak sa ñooñ génn danaa leen alak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla nangoo ñaanam ci barke yonent bi la ko yàlla musalee ci aw nitam